sëriñ moor absa lo sëriñ moor absa lo mi ngi gane àdduna ci atum 1863 ci ndaam gu rëy ndaam gu rëy mi ngi ci département bu Kébémer ci région de Louga sëriñ moor ab lo doomu sëriñ Amsatu Lo la ñu gënoon koo xam ci sëriñ Masata Lo waajuram wu jigéen soxna Absa Lo la tuddoon am na ñaar ñum bokkal kii di soxna Absa Lo ak moom muy ñett ku ñuy wax sëriñ Moodu Lo Absa sëriñ Dan Lo Absa ak moom sëriñ Moor Absa Lo ñoo bokk seen waajur wa soxna Absa Lo sëriñ Moor Absa Lo bi matee dal lii di alxuraanul karim waajuram di sëriñ Amsatu Lo ñu ko daa wax sëriñ Masata Lo moo ko jàngal alxuraan alquranul karim ba mu mokkal lii di alquranul karim ginnaaw bi nag dem na ci baay xaali ma jaxate kala ak maamam ji di sëriñ gayloo gay deel sëriñ Mor Absa ci ñi la jaar ci wàllu njàngum xam-xam ak lii di alxuraanul karim ba géeju ci lool ginnaaw bu sëriñ Touba seexul xaddim woote ci mbàkke kajoor taxawal lii di yoonu murit ci atum 1883 sëriñ Mor Absa Lo nag dégg na wooteb sëriñ Touba seexul xaddim bi te tànxam lu wu nag ndax dem na wuy ji seexul xaddim ci mbàkke kajoor kon ma wax leen lan moo yóbbu mbàkke kajoor kii di sëriñ moor absa sëloo ak it giseb sëriñ moor absa lo ak sëriñ tuubaa seexul xaddiim ci mbàkke kajoor lan moo ci xew ginnaaw bu jëmm jii di sëriñ moor absa lo jàngee ba noppi dégg nag genn góor yàlla guy woote yoon wu jëm ci suñu boroom te nekk nag ci dëkk bii di mbàkke kajoor di wuyoo ci turu sëriñ tuubaa seexul xaddiim booba sëriñ moor absa lo mi ci dëkku waajuram wi di ndaam gu mag mu solu dàllam ñëw fekk si ku baax ki ci mbàkke Kajoor ginnaaw bu mu nuyoon teg seexul xaddiim ba noppi seexul xaddiim laaj ko ana nga bàyyi ko mu wax ko fi mu bàyyi ko ba noppi sëriñ tuuba seexul xaddiim laaj na sëriñ moor absa loo fu sa àlli wa toll sëriñ moor absa loo itam wax na ko fi àlli waam ak li ko bàyyi xaali ma jaxata kala wax netti li na ko sëriñ tuuba seexul xaddiim keroog ca jataay ba sëriñ moor absa loo bi mu demee di jàng ci bàyyi xaali ma jaxate kala bàyyi xaali dane ko moor absa sa àlli wa macha allah li nga war a xam lépp xam nga ko xanaa nga dem toog di jàngale ka jàngale rek moo des ci yow waaye xam-xam moom macha allah noonu la ko nettalee ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim seexul xaddim teg ca ginnaaw bu ko sëriñ moor absolo nettalee loolu ko bàyyi xaali waxoon ba noppi mu ne nag li fi nekk ab xam-xam ko liitim di ab juddu mayewu ko waaye ñaq liggéey mooy liy maye li fi nekk ndax day jaay xanaa soo ko bëggee am daal dangay mel ne Ahmadu mandumbe mbàkke mais ndax booba bi sëriñ moor absolu di jaayanteeg seexul xaddim sëriñ mandumbe mbàkke ma nga fa kon keroog teede si sëriñ tuubaa def ci yoon wi ku ni bëgg a mel seex mandumbe la defoon comme référence keroog sëriñ moor absolu daa di jaayanteeg ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim ca mbàkke kajoor ay fan wala ay weer rek lañ ca teg sëriñ tuubaa seexul xaddim bàyyi ko ci mbàkke kajoor ñëw nag sanc si dëkk bu sell bi di daaru salaam keroog bi muy jógee ba mi ca la bokkoon bi muy sanc daaru itim sëriñ moor xabsa bokk na ca bi muy sanc dëkk bu sell bii di tuubaa itim sëriñ moor xabsa loo bokk na ca ci dëkk boobu di tuubaa sax fa la sëriñ moor xabsa loo jotaate ngërëmam delluwaat nag te jëkkub cosaanam ba di ndaam loo di ndaam gu rëy bi sëriñ tuubaa seexul xaddim di dem ci géej gi jaatu 1895 mi ngi woon ci dëkkub cosaanam bii di ndaam sëriñ tuubaa ci ñi mu dénkoon maam ceerno ibrahima faati mbàkke ci la sëriñ moor xabsa loo bokk géej gi ba ñibbisi ci le 11 novembre 1902 ba sëriñ Touba Seexul Xadim nekk ci dëkk bi di Sànnoosi ñëw na fa ziyaare si sëriñ Touba Seexul Xadim sëriñ Touba Seexul xaddim jox na ko fa lii ñu tuddee akaala ak gaal di ko xamal ne ko yëre yi bokk na ci yi ma doon liggéeyale suñu boroom ci géej gi jël ko di ko barkeeloo ginnaaw ba sëriñ Touba Seexul Xadim jógee Sànnoosi ñëw ci nganuk Daaru Salaam gi ba nekk Daaru Marnaan ci maam Ceerno Ibrahima Faati amoon na kii di mbaaxaan ba tubaab bi duggaat ci ñu yóbbu ko ci réew mii di gànnaar gànnaar googu sax sëriñ moor absa loo fekki na ko fa waaye laata mu ko fay fekki ku ñuy wax sëriñ muhammadu mbàkke miy waajur sëriñ cheikh mbàkke mi nekkoon ci daaray kaamilu njaareem ji la fa daa yónni ay yooni yoon sëriñ muhammadu mbàkke moomu sax sëriñ tuubaa seexul xaddi moo ko joxoon sëriñ moor absa loo boole sëñ muhammadu mbàkke mii sax la sëñ moor daa yónni lu bare bare bari ci sëriñ Touba Seexul Xaddim ci dëkk bi mu nekk di gànnaar mu am bis mu yónni kii di sëriñ Mouhamadou Mbacke ci xumaak fi sëriñ Touba Seexul Xaddim nekkoon bi muy ñibbisi waat di sëriñ Mouhamadou mbàkke mi la ko Seexul Xaddim ne soo demee nga wool ma moor ab sa loo moomu bi muy dem gànnaar di wuy ji sëriñ Touba Seexul Xaddim mi ngi dëppoo woon ak wala bi mu gisee sëriñ Touba Seexul Xaddim foofu ci gànnaar mi ngi dëppoo bisub ajjuma ñetti fan ciw maamu koor ci atum 1323 ci gàddaay gi fan ci mois de août ci atum 1905 sëriñ Touba Seexul Xaddiim gërëmaat sëriñ Mor Absa Lo ci réew moomu di gànnaar ci dëkk boobu di xumaag mu ne Mor Absa Lo ñaata at nga am sëriñ Mor Absa ne ko am naa ñeen fukki at ak benn mu ne ko bi ngay ñëw ci man ñaata at nga mu ne ko toll naa ci ñaar fukki at ak benn mu ne ko ñaata at lañ ànd mu ne ko ñaar fukki at lañ ànd mu ne ko suñ borom jéggal na la say bàkkaar ci yoo def ak yoo defagul tey bépp xéewal boo xam ne nii laataa ngay ñëw ci man romb na la incha allah xéewal yooyu dana ñëw fekk si waat la xéewal yi nga xam ne egseegul itam yépp dana ñëwaat ci yow fekk si la ci la ko joxe nag ay way gërëm ko way ya nag moo nekk ni ñu teewlu keroog ajjuma ñeenti fan ci mois de août ci atum 1905 dëppoog muy ajjuma ñetti fan ciw maamu koor ci atum 1323 ci gàddaay gi ci xumaag ci giseb sëriñ moor absolo ak sëriñ tuubaa seexul xadim ca tàkku saani xumaag ja way yi la ko seexul xadim defal ngir jagleel ko ngir seedeel ko itam ngërëm lum amaat ci moom ñu teewlu way yi يا أحمد يا في دنيا وأخراك حتاك يا حل كل سهل مولاك ويجعل الجنة دوس مسواك ginnaaw giseb sëriñ Mor Absa Lo ak sëriñ Touba Seexul Xaddim ci xumaag ci gànnaar sëriñ Mor Absa Lo bi muy dem xumaag di wuy ji sëriñ Touba Seexul Xaddim sëriñ Mouhamadou Mbacke la àndaloon ak ku ñuy wax sëriñ Njuga Dangura ak Baye Daam Mareema Lo te ñi la àndaloon bi muy dem gànnaar sëriñ Mor Absa Lo nag toogul foofu ci gànnaar daa daa di ñibbisi ginnaaw ngërëm lu ko seexul xaddiim gërëm mu toog nag di xaar ki mu yaakaar di seexul xaddiim bi seexul xaddiim jógee gànnaar ci atum 1907 ñëw ca yéen jolof nekkit ci résidence surveillée sëriñ Mor Absa Lo fekkaat na ko fa ziyaare waat fa kii di sëriñ Touba seexul xaddiim sëriñ Touba seexul xaddiim wax maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bindoon ñu koy wax minal xaqi minal xaqi googu sëriñ tuubaa seexul xaddim bi mu ko bindee ci ca yéen jolof dafa waxoon ne ku gis xasida gi texe ñu wane ko ca mag ña fa nekkoon ca jamono jooja mu faboon xasida gi jox ko maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru keroog bi sëriñ moor xabsa loo ñëwee ca yéen jolof ziyaar ci sëriñ tuubaa seexul xaddim seexul xaddim dafa woolu maam cerno ibrahima faati ne ko mu jox moor xabsa loolu di xasida googu di minal xaqi gi minal xaqi gi ba nëga ni ba muy xasi dëgg seexul xaddim bindaloon boppam ca yi boppam ba di minal xaqi googa ba nëgë ni mi ngi ci njabootug sëriñ moor habsaloo gi màggal gi ñuy màggalal sëriñ moor habsaloo di fukki fan ak ñeent ci weeru saxbaan ca dëkk bii di ndaam busra soo fa demee ñu wan la xasida gi ndax bés bu set bu ñuy màggal màggal googu danañ génnewaat xasida gi wanaat ku nit ñi ngir barkeelu ci wax ja seexul xaddim waxoon ne ku ko gis da nga texe xasida googu nag moo méngoo ganek àdduna ak sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi bindu xasida gi ak ganek àdduna ak sëñ abdullahi boroom dër bi ñoo maase kii di sëriñ Mor Absa Lo wala njabootuk sëriñ Mor Absa Lo am na yeneeni bagaasi seexul xaddiim yu ñu yor waaye loolu neexut a wax ci rajo waaye ku leen seeti ñu man la ko wan ba tey it ci kër googu di kër sëriñ Mor Absa Lo kaamilub alxuraan bu seexul xaddiim bindal boppam ca loxoom ba ma nga itim ci kër googu di kër sëriñ Mor Absa ci njaareem kaamilub alxuraan boobu sëriñ Tuubaa xaddim joxu ko direct kii di sëriñ moor habsaloo jaar na ciy loxo ba egsi ci njabootug sëriñ moor habsaloo man abdourahman mi teg naa ci sama bët ginnaaw ca yéen jolof sëriñ moor habsaloo fekk si na sëriñ tuubaa seexul xaddim ci njaareem njaareem googu sax bi mu fa seet see sëriñ tuubaa seexul xaddim sëriñ tuubaa moo ko fa dël lii di ngërëm itim amaat na ko foofu sax ci njaareem ci atum 1921 ngërëm googu sax moo dëppoo fukki fan ñeent ci weeru shaxbaan atum 1339 ci gàddaay gi dëppook muy bisub gaawu di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril ci atum 1921 njaareem googu sax sëriñ Mor Absa Lo nekk na fa ba ni fa sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bàyyi ko ci le 19 juillet 1927 ci dëkk boobu di njaareem itim mook seexul xaddiim séq nañ fa ay wax yu takkoo takku njaareem googu sëriñ tuuba seexul xaddiim joxoon na fa am ndénkaan kii di sëriñ Mor Absa Lo sëriñ tuuba seexul xaddiim na sëriñ Mor Absa Lo lii ma la jox sàmmal ma ko bis dana ñëw nag ma laaj la ko waaye ndénkaan bi bis bu ma la koy laaj du la fi fekk yow mii man mii duma fi fekk xoolal ci sa njaboot ku la doy nga jox ko lii dindi kan li te boo ko koy jox bum ko jox ku dul boroom ku ko ko man di laaj nag kii di sëriñ Mor Absa Lo dem jël ñaareelu doomam jii di sëriñ Saaliw loo indi ko wax ko seexul xaddiim seexul xaddiim di ko xamal ne Saaliw loo mi mat na ko yor kon jox ko ko te wax ko li ma la wax nag ci ndénkaan li te soo demee nanga nga aar ndénkaan li ci misaal daal bu ko ndox manal dara ca fa koy denc lii di sawara itim bum ko manal dara lii di ak maxitim bum ko manal dara te nga wut ngànnaay lu aar li la jox dëkkaan la itam néewul kenn moo ko moom sëriñ moor absa lo ñëw nag ci biir këram mu tabax fa ñaari pànt benn bi mu denc fa li ko seexul xadim jox di ndénkaan li bu ca des nag mu dëkkal fa boppam di ko aar néeg bi mu tabax lii di ndénkaan li te denc ko fa mu wut ñaari gaal genn gaal gi mu def ci lii di ndénkaan li ubaat ko ci biir gaal ganeen gi gaal ga ca des nag mu dugal ca fetal ga koy aar daa koy tëj sëriñ tuuba seexul xadim nekk na feek moom ba ni amul dara ci ndénkaan li sëriñ Mor Absa Lo itim nekk na fi ba ni mu làqoo ci atum 1943 kenn ci njabootug seexul xaddim ñëwul laaj lii di ndénkaan li mu bàyyi ko fi ab xalifaam wuutu ko ba ni mu fi bàyyi ko kenn laajut lii di ndénkaan li bi sëriñ saaliw loo mi seexul xaddim ne woon sëriñ Mor Absa Lo na denc lii di ndénkaan li ndax mat na ko yor toog nag ñaareelu xalifa sëriñ Mor Absa sëriñ Abdou Lahad ñëw toog nag ñetteelu xalifa seexul xaddim xaddiim ci at yu njëkk yu xilaaf ak cheikh abdoulahat mbàkke wala ci weer yu njëkk ya la njëkk a ñëw njaareem nag ci kër sëriñ moor xabsa loo na sëriñ saaliw loo la laay jël si sëriñ saaliw loo da koo tànxam lu ca yoon woowa mu jàppaat ay fan ñëwaat kër sëriñ moor xabsa loo newaat sëriñ saaliw loo ndénkaan la laay si sëriñ saaliw loo wéy di ko tànxam lu ca ñetteelu yoon ba ca la waxe kii di sëriñ saaliw loo ko soo ma joxul ndénkaan li nag ma wax ka la ko joxoon mu ñëw laaj la ko sëriñ fàlluloo ne ko kan moo ma ko joxoon mu ne ko ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim sëriñ saaliloo doog a jëg jox lii di ndénkaan la lii moom cheikh abdulahat mbàkke jaar na fa ak njabootuk sëriñ mor absa loo sëriñ tuubaa seexul xaddiim jaar na ceeg sëriñ mor absa loo bi sëriñ abdulahat mbàkke demee tuubaa ay fan la ca tegaat ñëwaat ñeenteelu yoonam di wax sëriñ saaliloo ne ko ndénkaan li de bay boo nga santaat suñ boroom bu baax a baax ku ndénkaan li lu mu baax baax kenn munu ko tee dem sawara ndénkaan loolu fiñ ko dencoon bi ñuy natt njaareem foofa mbedd moo fa waroon a jaar waaye ñi doon loti sa dëkk bi heure bu ñu egsee foofa dañuy nelaw ba fii may waxe yéen fi ñu dencoon dénkaan loolu ci diggum mbedd la nekk sëriñ saaliw loo mii sax sëriñ a habsaloo bég na ci moom ba tudde ko ñaari yoon doom ndax kim ko njëkk a duppee di doomam mu ngi tuddoon sëriñ saaliw moom soxna asu caam ñaareelu doomam jëm ko tuddee mooy sëriñ saaliw soxna xadi ñas moo fi nekk sax xalifab sëriñ moor lii di ay téere ak i way itam sëriñ moor absolo bind na ko xasida gi ci njaboot gi gën a bàyyi xel te teg ci bët mooy xasida ñu tuddee wala téere biñ tuddee jaali batul miyaa yi sëriñ moor absolo sanc na nag dëkk yu baree bari ñu ràññee ci dëkk bi ñuy wax ndaam kawsara ci atum 1913 sanc na dëkk bu ñuy wax ndaam loo mi ngi ci wetu dëkkum maam Ceerno Ibrahima Faati bii di daarul moxti sanc na dëkk bu ñuy wax njaxate sanc na itam dëkk bu ñuy wax kampu nangoo xoox sanc na itam dëkk bu ñuy wax lumbel kelli sanc na itam dëkk bu ñuy wax muure ak yeneen ak yeneen i dëkk ak i daara ngir nekk fa di liggéeyal sëriñ tuuba seexul xadim di yar ak a jàngale sëriñ moor absalo bi ñuy liggéey jumaay njaareem ji ci atum 1917 jàpp 1918 sëriñ moor absalo moom lañ dénkoon bépp addiye boo xam ne ni day jóge ci taalibe yi di ñëw ci jumaa ji liggéey bu am solo la def ci lii di jumaay njaareem ji moom doomam sëriñ moor absalo ñetti magi sëriñ tuubaa yi sëriñ tuubaa bindoon na benn bayit ci ñoom di leen wax ne yéen ñett ñi yéen a yam wàccuwaay ci suñu boroom te itim benn bis wala ay bis yu ngeen di génn àdduna yéen a koy bokk ci misaal daal ñett ñi neewoon na leen daanaka seen lépp benn la muy maam ni Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ ndaam Abdurahmaan Lo ak kii di sëriñ moora absalo noonee ko seexul xaddim waxe woon ni la amee ndax maam ndaamal daaru mu ngi génn àdduna bisub alxemis di 26 août 1943 dëppook muy ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru shaxbaan ci atu 1362 ci gàddaay gi ci dëkku boppam bii di daarul muxti ñu xëy tàgge ko mag ñi ne maam na Ibrahima Faati dem na naka ni biik yëgal ko kii di sëriñ Moor Habsa Lo booba mi ngi ci dëkku boppam bi mu sancal boppam di ndaam mu ne kon da la seexul xaddim waxoon am na moom itam ca bis biñ ko yëgalee ne ko maam Ceerno dem na ci bis boo boobu itam la génn àdduna muy ajjuma ja di 27 août 1943 tombeeg muy ñaar fukki fan ak juróom ci weeru Shahban ci atu 1362 ci gàddaay gi ci dëkkam boobu di ndaam ñu fabaat lettre bi yit ko sëriñ ndaam Abdourahman Lo ci dëkkam bii sëriñ Tuubaa daaloon ko di ndaam daaru xalimul xabiir mu ne kon moom itam de dëkk bu maam Ceerno nekkutu sëriñ Moor Habsaloo nekkutu fi te seexul xadiim noonu la ko bëggee woon kon moom itam day daal di dem ajjuma samedi dimanche altene talaata ci fanweeri fan ak benn ci mois de août ci atum 1943 dëppoog muy talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru shaxbaan ci atum 1362 ci dëkkam bii di ndaam daaru xaalimul xabiir ñetti jàmbaari cheikhul xadim yi ci ay bés lañ leen ñàkkandoo ñoom ñetti jàmbaaru seexul xaddim yi mu nekk atum 1943 mu metti ci yoonu murit ndax maam Thierno dem sëriñ Ndaam Abdourahman Lo dem sëriñ Moor Habsa Lo dem sëriñ Moor Habsa Lo mi ngi génn àdduna bisub ajjuma ñaar fukki fan ak juróom ci weeru Shahbaan ci atum 1362 ci gàddaay ajjuma ñaar fukki fan ak juróom ci weeru Shahbaan ci atum 1362 ci gàddaay gi ci ndaam gi mu sañcal boppam nekk ci Louga Lo dëppoo muy vendredi 27 août 1940 1943 vendredi 27 août 1943 ginnaaw bu mu génnee àdduna ci dëkk boobu di ndaam foofa nag lañ ko yenoo ba indi ko ci dëkk bii di Touba kon dañ ko yenoo ndaam gi nekk ci ginnaaw Louga ba ci tuubaa gi ci xilaaf ak Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke biñ ko indee Touba Cheikh Modou Moustapha Mbacke seede ci moom lu am solo xam ne liggéeykatu waajuram wa ki toppoon ci ginnaawam di ko xoole waajuram wa dem na mooy jàmbaaru Seexul Xaddiim nga sëriñ moor xabsa loo ay xalifaam nag nii la tëddee sëriñ axmadu faaloo moo ko wuutu ci atum 1943 ba atum 1964 atum 1964 ba atum 1984 ñaareelu xalifa sëriñ moor xabsa loo bi mooy sëriñ saaliw loo ibnu sëriñ moor xabsa mu mag ñetteelu xalifa sëriñ moor xabsa loo mi ngi toog xalifa ci atum 1984 ba atum 1990 ñu koy wooye sëriñ abdu yaasin loo ñeenteelu xalifa sëriñ Mor Absa Lo mi ngi toog xalifa ci atum 1990 ba ci année 2006 ñu koy wax sëriñ Abdou Khadir loo juróomeelu xalifa sëriñ Mor Absa mooy sëriñ Saaliw Lo mu ndaw moo fi nekk 2006 ba nëgëni yal na yàlla guddal aw fanam te yàggal ko ci kanamu njabootu sëriñ Mor Absa Lo sëriñ Mor Absa am na ay bis yuñ koy fàttaliku ñu ràññee ci rek bis biñ ko daa fàttaliku muy ñaar fukki fan ak juróom ci weeru shaxbaan bi mu génnoon àdduna waaye bis yooyu cheikh mamadul faadal mbàkke nangul woon ñu koy màggal ginnaaw bi nag cheikh mamadul faadal mbàkke joxoon na ndigal lii di njaboot gi ñu koy màggalal bisub fukki fan ak ñeent ci weeru shaxbaan ngir ñu di ko màggal màggal googu ba nëgë ni mi ngi am ci dëkk bi di ndaam busra sëriñ mustapha loo moo ko daa màggal doomu sëriñ moor xabsa la am na itim ganeen màggal guñ koy màggalal muy màggal gi nga xam ne ni ku fi nekk xalifab sëriñ moor Habsaloo yaa koy màggal Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo leen joxoon bis bi ci atu 1987 muy ñetti fan ciw maamu koor ndax bis boobu moo méngoog bis bi sëriñ Mor Habsaloo jotee ngërëm ca dëkk bii di xumaak ca gànnaar te seexul xaddim defoon ci moom ay bëyit bis boobu itam ñu ngi koy màggal at mu jot ci njaareem am na beneen bisit buñ koy fàttaliku ci campement Ngoxoox doomam jii di sëriñ moo Lo moo koy màggal sëriñ Mor Habsaloo am na ñetti màggal màggal yu ko njabootam gi di amal at mu jot ñuy ñaan ci darajay sëriñ Mor Absa Lo ak barkeb maamam ji di Gaydel suñ boroom yal na yàlla saafara jafe-jafe réew mi te def xéewal ak sutura ci njabootam te guddal fanu suñu baay bii di baay Saaliw te yàggal ko ci kanamu njabootu sëriñ Mor Absa te teg barke ak xéewal ci kër googu amiin